auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba ginnaaw bu ma santee yàlla julli ci yonent bi maa ngi sant sama wayjur yi ki jiitu ji ma koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ki fi dese ma koy ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ginnaaw loolu maa ngi sant sama borom kër bi nga xam ne nii moo ma bàyyi jox ma ndigal ci lépp lu ma nekk rek mu nekk ceeg man muy Mamadou Lamine Thiam nga xam ne moo ma féete ndeyjoor féete ma càmmeñ féete ma ci lépp jox ma ndigal bi ma ko ko waxee bis bi ba mu ne jàpp bi ma ko ko waxee dem ne dana ma danaa la ci jàppale taxaw la ci ba mu sedd guy ginnaaw loolu maa ngi am kontante bu baax a baax a baax a baax a baax di sant bu baax Serigne Sidi Mbacke mi nga xamante ne ni moo ma wóolu doyloo ma ba jiital ma ci liggéey bi di sant promotion bi nga xamante ne ñu ngi koy waa promo primaire xombal te Serigne Sidi bokk ci kuréel boobu ñu bokkoon bi ñu nekkee ndaw nekk ba retrouver waat sëñ Sidi ma nekk sama kóllëre nekk sama càmmeñ nekk sama lépp mu doyloo ma ci lépp nag te yaa ma doy rek dafa neex ginnaaw loolu maa ngi gërëm aussi waa promotion bi nga xam ne ñoom tamit dañ maa doyloo ci lépp jiital ma ci lépp di sant bu baax sëriñ safaa Diouf sama jëwriñ nga xam ne euh, moom tamit moo yaatal moo ma yaatal ci liggéey bi wax dëgg yàlla ànd koog man ñu koy liggéey boobu ba léegi di sant bu baax soxna Marème Diouf mi nga xamante ni ba ma ko sëñ si di waxee rek sama xel dafa daal di daj ci moom ndax moom moo nekk moo féete xombal moo nekk ci daayira yi mën cee liggéey liggéey boo xam ne man mënuma ko cee liggéey di sant mboolem daayira yi xombal yi fédération de daayira murid yi nekk xombal yëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm kontaante bi mën naa natt fu muy tàmbalee waaye mënuma natt fu muy yem tey ku ñëw xombal xam ne xombal am na bésu xasida maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax jëwriñ ñi nga xamante ne ni ñoo bokkoon liggéey bi ñu nekk ci daayira bi te sëñ Moustapha ma koy waxaat nekk ci liggéey bi mboolem commission yi nekk ci euh, fédération bi yëpp fédér euh, di ko tënk ci ñëpp rek di sant bu baax sama wayjur di sant bu baax sama borom kër nga xamante ne tey lu ma nekk rek ñoom la waaw di santaat bu baax Serigne Sidi Mbacke ci kóolute bi ndax yaa ma doy rek dafa dafa dafa diis di ñaan yàlla rek kóolute ma sëñ Sidi wóolu waa promotion bi wóolu ma ko moom bu ma limee suñu président promotion bi rek ñu Amadou Sakhir Fall rek lim naa ñëpp kaw ba suuf ñu ànd ak sëñ Sidi ci liggéey bi jàppale ko ci nag jàppale bu am solo macha allah. mel na ni sëriñ Amsatou Mbacké yabal na fi ay mbooloo yu takko takko. waaw di sant bu baax sëñ Amsatou nga xam ne moom mooy jëwriñu xasida yi ku ne xasida yi rek sëñ sa dem ci sëñ Amsatou Mbacké mu yabal fi sëñ Bassirou Mbacké mu sëriñ Bassirou mu sëriñ Fallou suñu kóllëre ñu koy sant bu baax a baax a baax di kontaan bu baax ci taxawaayam ci bés bi. di ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëñ taxa yàlla na fi yàgg te di ñaan sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér kontaan naa trop kon lan ngay lan ngay wax euh, mbooloo yi nga xam ne ñoo nekk fii xombal rawatina daayira yi. waaw may wax rek na daayira yi lii tàmbali la rek tàmbali la rek ñu ngi doog ko koor liggéey bi ñu takkaat laxasaay yi rek liggéeyal sëñ Touba ndax ñu bëgg ñoo doon dara lu dul taaliba sëriñ Touba ci la ñu nekk te ci lañ bëgg nekk te ci la ñu nekk ba keroog ñuy sàngoo suuf na yéex. waaw kontaan naa bu baax ñu takkaat laxasaay rek booloo nekk benn nga xam ne lépp ñun duñ ci dara lépp Cheikhul Khadim la ndax sëñ Touba buñ ne bésu sëñ Touba rek sëñ Touba moo koy fàggul boppam moo koy euh, euh, toppatool boppam ñun dañuy exécuter rek duñ ci dara di gër santaat sëriñ Touba bu wér a wér a a sant goo am tàmbali te ñu fu muy yem waaw jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaw jërëjëf a Touba jërëjëf maam Cheikh Fall a rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rasul Euh, ñi ngi sant di ñaanal suñu Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàgg fa loolu te wér suñu jëriñ jooj nga xamante ne di ko ñaanal mu yàgg fa loolu Mbàkke te wér ba àggal liggéey sëñ Seexul Xadim bi ak tawfeex di gërëm mbooloo mi ñu si di gërëm daayira Maam Jaar bu sa yëpp ndax liggéey bi ñu nag daayira soxna Maam Jaar yëpp ñoo ko bokk rawatina soxna soxna si de soxna Yaasin Njaay ñi ngi gërëm suñu jëwriñ sëñ Moustapha Diouf di gërëm it sëñ Abza borom borom bisu xasida yi di gërëm it sëñ Cheikh Bass mi fi indi mi fi mi fi yebal ngoogi jëwriñ sunu jëwriñ la ndax ci moom la ñu dal uh, màggalu Kazu Rajab ak màggal Touba ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm ndax bisub tey bi daal taw fee na taw fee ko boo xamante ni daal man wees na suñu njot di ñaan nag lépp luñ fi def ci xasida yal na yàlla suñu def muy yiw ci xombal yiw ci senegal yiw ci àddina ci barke weeru safar bi ak sa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërëjëf sëriñ Fallou Bousso mi nga xam ni mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg waa sëñ bi ni nga ko waxee nii rek tey suñu gis-gis dafa kawe njort ndax bisu xasida ñu ngi koy soog am xombal yëngu bu nekk ci sëñ Touba nag am na xombal te macha allah bu ko amee tamit nii lañ koy àndandoo ba mu taw féexee waaye bii moom day euh, première édition boo xamante ni bisu xasida la ñu ci sant bu baax tam ci namit euh, njort lu kawe lool. lépp luñ ci doon tiit ak luñ ci doon xalaat lépp sëñ bi defaral nañu ko yombal ñu liggéey bi yëpp leneen li ci des mooy ñi ngi sant bu baax soxna Umu mi nga xam ne ci moom la ko yàlla jaarale bi mu ko jaaralee ci moom muy suñu doom ñuy seen yaay ci liggéey bi mu teg ko ci waañu loxo soxna Marème Dioum mi nga xam ne fédération Maam Jaara bi ñu àndal liggéey bi moom mooy trésorière générale bi moom soxna Marème Dioum mooy trésorière générale fédération des daayira Maam Jaara ñu ñu woo daayira yi ñu wuy si ñu indi seen ñaq indi seen doole indi seen yëpp kon li nga xamante ne moom leen di ñaaxe mooy alhamdulilah alhamdulilah ndax woo nañ leen ci sëñ Touba wuy si nañ ci sëñ Touba ah ñun tamit ñu ngi leen di booleeg sëñ bi ñun mënuñu amuñu waaye sëñ bi moo am fay biir ak biti moom mi am fay ñu ngi koy kalaamee ak ñoom te di leen wax ni saa su nekk rek nii la ñun ñun ñun ay soldats yi sëriñ la ñu. ñun waa Kër Maam Jaara foo ñu woo rek ci sëñ Tuubaa ñu wuy si la kon ñi nga xam ne wuy si nañu joxe seen addiya soxna Marème ak soxna Umu nee nañ ñoo ngi leen di sant bu baax amuñu fay waaye sëriñ Tuubaa am na fay kon sëñ Tuubaa mi am fay na leen fay te di wax ni tamit ñu gën a góorgóorluwaat gën a laxasaay suñuy laxasaay ndax ket kenn amul lu du liggéeyal sëriñ Tuubaa kon sunu umu bu tàbbee ci say loxo nga tàbbal ko ci loxo soxna Mariam Jum mu boole ñu ci ñun soxna Yaasin Njaay bëgg fàllu di bàyyi fàllu maam jaara kon dañuy sant bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant di leen ñaanal di wax ni wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax a baax sant nañ bu baax yéen ñi yore wax waay tamit ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ndax yéen a mën a fexe ba ñi nga xamante ne nii ñàkk nañu passé wala ñi nga xamante ne nii ñëwaguñu gisee lii ci ci ci waxu waay yeeg ci télévision yi dina gën a lu gën a ñaaxaat seen bopp ñu daal ñooy fédération Maam Jaara xombal ak li war waa xombal ñi ngi sant nag sëñ Sidi bu baax di ñaanal sëñ Amsatu mu yàgg fi te wer lool di ñaanal sëñ Bas Maraaxib suñu borom yàggal ko te wéranal ko te kàttanal ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad jërëjëf Sëriñ Tuubaa jafe Sëriñ Tuubaa waa kay jër ngeen jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi ci xombal ci bis bi nga xam ne bisub xasaayit la ñu am soxna soo xam ne ñoom it jàkkaarloo nag ñoom ci bëccëg ba tey ñu ngi ci wax dëgg yàlla ci bis bi soxna si yow noo tudd. soxna Mati. waaw soxna Mati noo gisee bisu xombal bi. bisu xombal bi xanaa di ñaan suñ si mu Muntaxa yal na fi yàgg say wér soo ñu ko fekkee ko ay déwénu déwén bis bi kontaan nañ trop ñaan suñ Tuubaa mu dolli ñu ay xew ci bàkki Seexuna Seex Ahmadu Bamba ak kay ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen soxna Awa Mohamed Loumar yow soxna si noo tudd. Mariette. Mariette. soxna Mariette noo gis sa bisu xasaayid bu xombal la fi jëkk am. ah. noo gis sa xombal bi. <laughs> neex na de. Ah. looy ñaanal sëñ Muntaxa. yàlla na fi yàgg te wér. waaw jërëjëf. waaw kay ngeen jëf mbokk yi ba tey noo ngi fii ci Touba xombal noonu leen ko waxee wan xam ngeen ne liggéey bu am solo bii nag ku ko wax wax organisation organisation bi nag gis nga ne ma leen ko waxee ca émission ba lay jàll waaye jëwriñ ji nga xamante ne mooy sëñ Moussa Ndiaye moom mooy ki nga xamante ne mooy jëwriñ ji euh, sëñ Moussa liggéey bu toll nii nga xam ne ñu ngi koy defee Touba Xombal te tey mooy première édition maanaam nan ngeen waaje wan bis bi ci wàllu organisation nan ngeen ko waaje wan ci ay ndaje ak ay waxtaan nan ngeen ko waaje wan aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim ahadu salli wal tusallim sarmada ala alladi sammaytuhu muhammada jërëjëf borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi nuyu di siyaar di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké keme yàgg fi loolu te di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall ak bépp njaboot ak maam borom Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall waaw jërëjëf jërëjëf comme nañ ko waxee rek bés bi yàgg nañ ko waaj ci fànn yëpp ndax organisation daa am ay pàcc yu bari yu fi nekk ndax fi ñu toll nii lu ñu wax waañ waañ wi fa la fa la féete lu ci mel ni collation ñi yor wàllu ndox meeg wàllu naanu yëpp fa lañ féete waaw yu ci mel ni li nga xamante ni mooy euh, li jëm ci euh, wàllu hygiène wàllu café ak yëpp fa féete ci noonu moo amal nañ ay ndaje yu baree bari ci gannaaw pàcc bu nekk buñ falee juriñ ji ba mu def am ndaje ba am ni ko bëggee amal ndaje yu baree yoo xamante ni dañuy def ngir xool ba xam nan lañ nan lañu mbooloo mi déggoo ci loole ba tax na cuisine biñ defee réunion ñoom xamante ñoo ci ëpp solo ba wax liñ bëgg ci xamante ne mooy bés bi ñoom def nañ toll ci fukki mën ak ñaar yoo xamante ni def nañ ko añ bu ñu noppee itam ci guddi gi taal nañ ñeenti mbana yoo xamante ni reer la te it loolu noonee la demee itam ci fànn bu nekk waa collation itam biñ defee réunion it ñoom ba wax liñ bëgg ci wàllu naanu gi lu ci nekk mat na doy na sëkk macha allah. kon daal waajoon nañ ko daal waaj goo xamante nii daal da fi ñu toll nii kawe na suñu jort ndax lañ yaakaaroon lépp fi ñu toll nii am nañ lu ëpp loolee kon dañuy santal suñu Tuubaa bu baax rek ngir moom moo tax ñuy liggéey te moom itam moom lañ yaakaar kon ni ñaan mu dëppook suñu li ñu def lépp moom ñu am dëpp ci ngërëm ak suñu Tuubaa ci barkeb xasida yi ñuy santal bu baax a baax jërëjëf waaw asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli sonate bi ñu ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jiital si nuyoo bi suñu kilifa yi nga xam te ni teew nañ fi waaw di waxaat bu baax li nga xam ni amaloon nañ ko fi muy bisub xasida maanaam ñu ngi ñaan yàlla nañ ci am lu ndëppoo ngërëmal Sëriñ Tuubaa comme ni nga ko waxee rek maanaam ku ne bisub xasida wax maanaam alxuraan waaye tamit wax li nga xam te ni mooy xasida kon niñ koy faral di baaxoo di def ci bisub xasida yi maam tey bis bi jàng nañ fi limu alxuraan yu takku yu bëree bëri waaye naka noonu tamit lii di xasida yi ñoom it desuñu ginnaaw ndax amal nañ fi limu yu takkoo takku te it xasida yooyu depuis keroog ba ñu amee ndigal ba léegi ñu ngi daje ci ay gër bërëb maam dafa jàng xasida yi di ñaan daal li nga ni jàng nañ ko si xasida ak ci alxuraan yàlla na sëriñ waa nangu li nga xam te mooy liggéey bi yéen ñi nga xam te ni nag yéenay waa Bichri TV maanaam ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di rafetluwaat seen taxawaay maam gis ngeen gis na ni ngeen jàppe bis bi gis na ni ngeen couvrir bis bi tamit maam ñu leen di ñaanal daal fépp foo xamante ni bëgg ngeen faa yegg ñaanal leen ko Serigne Touba defal bi jaay rasulullahi ci barkeb weeru safar wi ñun nag ma commission culturelle si turu maam Cheikh Diouf si ndigalul maam ki nga xamante mooy Serigne Abdou Lahad Niane maam ñu ngi sant mbooloom yëpp ak ñi nga xamante ni maanaam ñoo ñu jàppale ci liggéey bi ba liggéey bi yegg fii ak képp koo xamante ni amoon nga yéene jàppale nañ ci saa borom dagal ko kon ñu sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen bu baax jaa ngeen jëf. jërëjëf sëriñ bi xanaa di sant sëriñ tubaa rek te ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi njabootu sëriñ tubaa gépp di siyaare Cheikh Ibrahima Mbacke sëriñ seex Mbacke sëriñ Alé Fall mi fi nekkal sëriñ Touba ak mboolem njabootu sëriñ Touba gépp ak mboolem seexi sëriñ Touba nekk yëpp ñoo ngi di nuyu ñëpp di siyaare rek jaar suñu bunt sëriñ di ñaanal bu baax gaa ñi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal liggéey bii te sëriñ Moustapha Diouf jiite leen ànd kook ñoom muy bisab xasaayit bi mu tuddee bisab xaside rek lañ ci saña sañatul a génn ngir sunu diggante xaside yi jànkiti xasaayit lañu kon bisab xaside sunu bisa nuy sant bu baax waa xombal gépp ak li ko ak gan ñi nga xam ne ñëw nañ fi ànd ak ñu liggéey bii kon noo ngi jël sunu kàddu di ko jël turu Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne moom ñu jiite ci kàddoom la ñuy waxee di sant mboolem koo xam ne yaa ngi yëngu ci xasida yi moo xam ci noo ko yëngoo noo ngi lay sant bu baax tey ñaan sama borom yàlla moom tawfiix yàlla na la ko defal bis bi itam liñ ci yëg rek mooy bisub xasida la jàng alxuraan durus xasida yëkkati xasida yi loolu kat moom njariñ kese la kon xombal ak li ko lépp jariñu nañ ci ñoo ngi ñaan jeen jox yàlla nañ ci daje ngërëmal sëñ Tuubaa ngi dimbalam di leen sant yéen itam ci taxawaay bi ngeen ci am ndax itam ñëw ngeen ànd ko àndi mu rafet lool kon yàlla na mi am tawféex yàlla na yëkk seen télé bi ba fu ngeen ci bëgg a yegg suñu borom àggali leen fa te ngeen daje ngërëmal sëriñ Touba ñoo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp nag ñaan sama borom defal ñu tawféex barke sëriñ Touba. xam naa comme njàngkatu xasida nga du ñàkk nga yëkkati ñaari bay tëjee ko ko. bisimilah. fasiwatikal karimi kulla man afisat al abyat fi kulli zaman احفظ لوجهك الكريم كل من عفزت الأبيات في كل زمن ليستجيب ربي ووجه فعلا وسر إبليس لخير بولا am lu ñu seede ci ñoom ñaar li ñuy amee lu ñu seede ci ñoom ñaar mooy li ñuy wax ne Sëriñ Tuubaa ñëpp la man jàpp naa ne ñoom ñaar monsieur le maire ak adjoint Lamine Gueye dañuy firnde loolu ndax yàlla dafa dogal ñoom ñaar ñëpp bokkuñu ci bokkuñu ci yoonu sëriñ bi waaye mel na ni bokk nañ ci ngir jëf ji ñuy jëf te yàlla tax ci yoonu sëriñ bi kon nag loolee day day day day firnde li sëriñ bi bëggoon ak li sëriñ sëriñ Sidi Mokhtar woote woon ne déggat bëggatuma dégg ñu naan murit wala wala wala tijaan kon loolee ñoom dañoo ñëw firnde ko te ñëpp xam nañ ci xombal seen taxawaay liñ fi taxaw amul benn bisub diine boo xamante ni ñoom sofante lañ ko déedéet danañ jël seen alal jël seen xalaat jël seen xam-xam def ko ngir jëmmi sëriñ bi dongu tax kon nag ñoom wax dëgg si yàlla ñun ñu ngi leen dëkku delloo njëkkal ndax lii la ñuy la ñuy sàkku ci kilifa gu nekk ci dëkk boo amee boo bu nit ñi ndaw yi xewlee ci wàllu diine nga jël sa alal sa koom sa lépp sa xalaat lépp jox leen kon nag ñoo ngi leen di ñaanal sama borom defal leen tawféex barkab xasaayit yi ginnaaw loolu it ñu ñaalal Aline juuf mi nga xamante ni wax dëgg si yàlla yàlla dafa dogal nu nu dëkk muy jàmbaar bi mu yégee bis bi yàggut waaye jël alala itam daat ko ci def ñu sant tuuti rek ci ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu ànd ak ñoom ñuy suñu mbokk soxna yi nga xamante ni wax dëgg si yàlla ñoom it jàpp naa ne bu bis bi taxawee ñoom am nañ ci pàcc bu rëy boo xamante ne doxal nañ ko ndax buñ ne wàllu addiya yaakaar naa ne buñ ne ñaari fan ci laata bis bi ñëw ñoom seen addiya ji nga xamante ne dañ ko dañ ko dañ ko waroon a indi matal na ko matal nañ ko ñoom toog di ñu xaar ci njiital soxna Oumy Diagne ak ci njiital soxna Marème Dioum agit it soxna Yacine Ndiaye mi nga xamante ne wax dëgg saa ñoom bi bis bi bis bi desee une semaine toogatunu nelawutunu lekkatunu ngir bis bi jàkk waaye loole dañuy jàpp ne defaluñu ko ñun seen bopp lañ ko defal ndax ni ma ko soxna Yaasin waxee koo xamante ni dafa armé woon taxaw nga nu kaay ñu liggéeyal Sëriñ Tubaa kookee lu mu am dana ko def ngir jëmi Sëriñ Tubaa tax kon nag ci sama kàddu ñoo ngi leen di ñaanal sama borom defal leen tawféex ñoom itam te ànd bii sama borom def ci teg ci loxo ba mosuñu ci seetaane ba gën koo dëgëral ci kàttanu borom Tubaa ginnaaw kàddu cant yooyu yëpp nag. ñu ñëwaat tuuti rek ci li nga xamante moo sabab lii li ko sabab mooy sànq nee naa bu nu bu nu amee sañ-sañ wala amuk bëgg suñu kilifa yi diine yi nga xamante ñoo nekk ci gox bi ñoo ñu kàttanal waaye nag ñoom bu ñu kàttanalee dooleel ñu ñaanal ñu itam dafa am loo xamante ni mooy keno gi te sëñ Koso kenoog bis bi mooy lëkkaloo gi nga xamante ni mbokk taalibe yi ci xombal danoo àndandoo bokk ndey bokk bàyyi bépp daayira bu nekk ci xombal yaa ngi ci bis bi ñu lëkkaloo ko nag ak seeni i jëwriñ ñu mel ni dañoo dañoo dañoo dañoo maanaam dafa dafa mel ni bis bii rek moom moo moo manqué ci xombal kon dañ ko war a réaliser ñoom ñëpp nag muy kullu jëwriñ boo xamante ni yaa ngi ci xombal xañ na bu ñu liimee sax dañuy juum waaye dinañ ci jukki ñenn ñoo xamante ne dañuy laawaale yëpp ku ci mel ni Aline Diouf Mafatil Bisri anen Abdoul Ahad Ñaan Mafatil Bisri bu Ngànjool sëriñ moor Mbaw xitma daara xitmatul xadim bu Njaayin Guy sëriñ Ahmadou Sarr Ñing Nuuru Daarayni bu Njaayin Guy sëriñ Masamba Fay yàlla dafa dogal nekku fii waaye am mbooloom boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi ci lépp tey it ko Koso li ci gën a doy waar mooy daayira yooyu yëpp yi ma lim ak ma limut seenu ñaq dafa dem ci bis bii maanaam ci bépp fànn nag man li ma gën a yéem ci bis bi sax mooy engagement bi nga am xamante ni mbokk taalibe yi ak jëwriñ yi dañ ko amoon ci bis bii mooy lu kawe njort mooy lu kawe suñu njot lool lool lool lool ndax ni ma ko waxee ci njëlbeen gi bis bii da di bis bu njëkk ci xombal muy bisub xasaayit amoon na ak ak ak ak ak wuute tuuti ci wàllu ci wàllu ci wàllu doxalin bi loolu nag li ko indi du dara lu dul ñàkk xam ak ñàkk ñàkk ñàkk leerlu ci wàllu bisub xasaayit waaye nag ndokk yàlla bi nga xamante ni sunu borom kàttan nañu ba mën nañ sax bu ñu réussir bis bii à cinquante pour cent lañ lañ bëggoon am nañ ko waaye nag liggéey bi mbokki taalibe bi yamut fii lii da di première édition nit ñi xippi seen bët di xool ba xam dinañ dem ak duñ dem kon nag fi mu ne nii à partir tey jii la ñuy ni tubaab di wax la ñuy seerawaat ceinture yi gën a waajal bu déwén. waajal bu déwén ci bépp melukaan bépp faay boo xamante ni am na ci bis bi bu déwénee ñu ngi ñaan ci kàttanu borom Tuubaa loolee bañ a am leneen itam li may soññee mooy euh, sëñ Alé mii nga xamante ni yàlla dafa dogal sànq ñu tudd ne dañ ko war a siyaare ji loolu maa ngi ci woo mbokk tali bi yëpp ndax da di warteef représentant xalif général da di xalif général ci xombal kon nag loolu warteef la te am xombal nag kon nag loolee buñ ko dee dam sabab di ko dogal di ko ko bëgg ko def lu kawe la ni bis bii njëkkee ci xombal loolee la siyaar boobu di njëkkee ci ci ci xombal kon nag ñoo ngi woo mbokk taalibe yi ci ci ci siyaar boobu di leen di leen di jaajëfal tamit média yi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu teewoon fii muy Bichri TV ànd kook sëñ Koso Sey wax dëgg si yàlla koso taxawaay bi am na solo ginnaaw loolu itam ñu sant sunu mbokk taalibe yi nga xam ne dañoo nekkoon ci ginnaaw maanaam doon ñu xelal ci bépp bépp bépp xel muy waa Kanzul diin ñi nga xamante ne sëñ si dafa leen dafa leen yabaloon ñu jógee ba ba États-Unis muy sëñ Insa Goudiaby waa Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos seen représentant Ahmed ah, ah, Ahmed Ahmed Kassé ak sunu mbokk yi nga xamante ñoo nekk ba sewexaay gi xëy na bu ñu limee sax dañuy juum waa maj mu nooré ni bu Thiès sëriñ Omar Omar Sylla mi maanaam mbokki télé bi yëpp wax dëgg si yàlla mënunoo lim waaye sëriñ Tuubaa seeren daal man xam naa ni ma bëggee ci bis bi noonee itam loolu lañ bëggee ci bëggee ci bis bi kon nag noo ngi ñaan ci kàttanu borom borom Tuubaa yàlla sama borom defal ñu tawféex ñu gën a ñaanal te lép loo xamante ni jàng nañ ko fi muy alxuraan wala muy xasaayit yàlla na boroom def ko ba gën a yokk fanu Serigne Mountakha Bassirou noo ngi noo ngi noo ngi jégluwaat di ñaan yàlla sama borom defal ñu tawfeex barke ya يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وجه لنا سواد دين فائقات وتكفنا إلا من وبيننا وفي عمال الأولاد يا مالك الجبال والبلاد وبارك فينا والي أمرنا يا مصيبا بغير راد لنا سجب يا خيري وجملة السخار أنت الباري وهب لنا سورية تديم الأمل الصالح يا خديم وهب لنا سورية تديم الأمل الصالح يا خديم وهب لنا سورية تديم الخمل الصالح يا وهب لنا ذرية تديم